moo tax lii xew fan yii nag ci ay bis gii mooy mbirum jàngoro ji danaa ci dellusiwaat sax ci li ma ci wax waaye ñu bari woo nañ ma daa mujj sax ki war sama téléphone bi ma ne ko bu moo ko àggeete ndax sëriñ bi lam ca war a xam xam na ko ca waaye diggal sëriñ bi nag ne ko defal nangam ab taalibe du ko def ndax nit la sëriñ Mbàkke bu sooxoon rek ñoo ko seetoon ba mu doy ñu suñ digal suñ borom ñu doy loo ko ci kon lu mu ñu war a wax dañ ko war a gëm sëriñ bi nag la mu war a xam xam na ko na muy saafara nag nañ toxal màggal yeeg nañ indilee xew-xew yi loolu du suñu cër ma ne du ko def te ko yaakaar Sëriñ Tuubaa tamit dëgg ceeb itam sëriñ bi bu doxoon ba xam ne lu ñu war a def la du ci diglu kenn ndax xam ngeen ne sëriñ bi amul lu muy ragal amul lu muy xalaat moom bu waree jël responsabilité da koy jël ñëpp dégg ko kon fommuloo sëriñ bi ak màggal. sëriñ bi moo ñu gën a xam suñ bopp moo ñu gën a xam lay xew ëllëg moo ñu ëpp basiir ci diggam ak boromam wàllu àdduna gi itam lim ci xam xawuñ ko kon boo xoolee ba xam ne lii la jamono ji laaj ca diggam ak sëriñ Tuubaa xam na lam ca war a def loolu du ci diglu kenn kon loolu na ci ñëpp génn te bàyyi di wax sëriñ bi na digle ñu foofu màggali sëriñ bi loolu lu bu dee lu mu war a def loolu moo koy xam du man maa koy digal te ku fi nekkal sëriñ Tuubaa kat am na kilifa gu mu waxoon gu mag ci njabootu Serigne Touba ku baax ne ma lu mu njëkk a xalaat te kenn wax ko ko te Serigne Touba la jóge kon nag loolu laa amoon ci wet googu lu ma ci wax.